sama naataango bi ñuy àndal saa su ne fekk si nañu euh, Amadou euh, Tall Amadou nuyu naa la j'espère que tu as passé très bon week-end. waaw merci beaucoup Kadior week-end bi dafa gàtt trop Kadior samedi dimanche kese la est-ce que doon ñu jël lundi teg ko ci après ñuy commencer mardi. day neex ba moom. <laughs> je pense que loolu la ñu war a def au ah, Sénégal. kon de ça gis nga gis nga non c'est. def nañ li ñu waroon def vraiment donc dañuy am un peu de répit samedi ak dimanche bi donc tu restes la maison avec avec la famille donc merci beaucoup ñu ngi nuyu di la jaajëfal bu baax a baax am mbégte kontaan te fekkaat la ci ci plateau bi nuyu non téléspectateurs nga xam ne ñoo ñuy suivre du lundi au vendredi Kajoor merci alors nous allons euh, dinañu waxtaanee actualité pour démarrer mais dinañu waxtaanee li nga xam ne moom mooy euh, leadership ak entrepreneuriat surtout ci wàllu euh, ndaw ñi ci loolu itam war nañu mën a wax waxu politique mais tout dépendra de la situation ndax suñu deuxième gan ba léegi gisaguñ ko nous sommes avec ki nga xam ne mooy Wakil Mohamed Ba moom nag mooy président de la coordination des jeunes leaders et entrepreneurs du Jolof. moom itam écrivain la daanaka bind na ñaari livre yooyu yëpp dinañ ci ñëw entrepreneuriat euh, l'acti ba enfin euh, jël say idée euh, selon nu réew mi di doxee nga jaarale ko ci livre daal di koy fësal monsieur Ba c'est un plaisir ñu lay dalal ci plateau bi ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu bàyyi la nga nuyoo mbokk téléspectateurs yi. Euh, merci beaucoup monsieur Cissé donc bonjour donc à tous bonjour chers téléspectateurs donc bonjour les. Euh... animateurs euh, yu ma fi fekk donc ñu lay remercier bu baax juriste c'est notre maison. ah juriste maison c'est ah, excellent c'est excellent Amadou <laughs> <laughs> c'est excellent donc c'est Wakil Mohamed Ba comme ni nga ko waxee président de la coordination des jeunes leaders et entrepreneurs du Jolof ñu ngi nuyu donc waa Jolof di nuyu waa Sénégal di nuyu suñu ay waajur sama yaay particulièrement mu ngi may suivre à travers cette TV. donc ñu ngi koy nuyu la maman. <laughs> depuis de, de, depuis Jolof wala moo ngi fi. effectivement depuis Jolof moom mu ngi. daal Jolof ngi nuyu waa Jolof yëpp. <laughs> effectivement par la même occasion. voilà donc merci beaucoup ci invitation bi quoi. jaajëf jaajëf euh, Wakil Mohamed Ba Wakil man dégg naa pël tuuti Wakil ça veut dire quelqu'un qui se débrouille kuy ñafe. suñ ko waxee ci pël ndax ça veut dire la même chose parce que ça veut tout dire quand boo tuddee noonu tey nga am statut bi nga am ni <laughs> tour bi wuy na boppam. effectivement waa waa dëgg la en pulaar c'est ça que ça euh, veut dire quoi mbir wàkkirloo genre. voilà maa ngi wékku si yàlla quoi voilà maa ngi maa ngi maa ngi <laughs> ñafe daal. maa ngi débrouillé. voilà mi ngi noonu en tout cas ah c'est des polars qui se réunissent ici. ah ah oui. en tout cas c'est un plaisir léegi dañuy euh, hmm. dugg avant parce que jeune nga jeune nga et tout ça l'avenir du Sénégal appartient à tous les Sénégalais j'aime bien qu'on démarre. Hmm. avec euh, l'actualité boo xam ne moom mooy bu Moussa euh, maître Moussa déclaration bu mu def dama ci bëgg am juste kenn ku nekk sa impression ça vous inspire euh, Amadou ça vous inspire quoi comme réflexion euh, déclaration yoo xam ne maître Moussa euh, Diop wax na ko dégg nga accusation yu bëri yoo xam ne def na ko ça vous inspire quoi comme réflexion Kajoor daf may daf may daf may daf may àndiwaat rek un ci façon homme politique bi ñu am au Sénégal Kajoor parce que c'est vrai que politiciens yi fii au au Sénégal je pense que ni du ma duñu du ñu globaliser mais dafa am benn benn comportement benn attitude boo xam ne dañ leen ko dañ leen ko jox ñoom si dafa am benn benn image boo xam ne ñoom dañ koy dañ koy projeté mm. boo xam ne la population vraiment bëggatu ko vraiment parce que ñun politique bi nga xam ne moom la ñuy def nekk na benn politique boo xam ne ñoom les politiciens je donc li ñuy politique cest à duñ def politique bi nga xam ne ñi moom lañ soxla c'est-à-dire wax sur des idées wala def di ay ay programme wala waxtaanee loo xam ne vraiment dafay jëmale li nga xam ne mooy réew mi réew kanam donc à chaque fois dañ koy gis ci ay ñaga santé ñaga santé ñaga santé lañ nekk c'est vrai que def na accusation yoo xam ne accusation man jàpp naa accusation yu yu rëy la parce que boo demee bay def accusation il faudra nga am ay preuves yu leer balaa ngay def li nga xam ne mooy accusation maintenant war nañ ko la parce que ce sont yoo xam ne dafa porter sur des éminentes personnalités de l'État loolu tamit vraiment war nañ ci mën a am des éclaircissements de notre côté parce que vraiment bu ñu jëlee ay nit des représentants de l'État lañ koy wax ñu fal leen jox leen li nga xam ne mooy nguur gi ñoom ñu ñuy liggéeyal donc il faudra ñoom les ressources yi nga xam dañ leen koy jox donc ñu jox ñu donc plus de transparence Kajoor donc xam li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy def maintenant ce sont des accusations qui sont graves vraiment très graves maintenant porté na ko nag sur des personnes yoo xam ne ce sont des ñoom nañu leeral ci li nga xam ne moom mooy situation bi ni mel maintenant en quant à lui ak ñi nga xam ne mooy mooy l'État bu fekkee il a des preuves yoo xam ne yu leer la na ko génne parce que je pense que ne affaire bi du yem fii parce que ce sont des accusations qui sont très très graves ñi nga xam ne ñoom la ñoom la concerné je pense que dinañ dinañ riposter bu ñu riposter après ñoom seeni bopp la maintenant ñun en tant que des des citoyens ñun ñoo leen fal vraiment nous voulons tout simplement que mu am transparence am lu leer nañ entre li nga xam ne moom lañ ci jëlee démb te maître Moussa Diouf wax ko Kajoor. Euh, monsieur Wakil euh, lan nga ban xalaat nga am ban gis nga am si lii accusation yi nga xam ne ñu ngi koy am ba léegi euh, yenn saa yi mu am te askan wi du ci am lu ko leer amoon nañ fi ay kaaw armes yu ñu jënd amoon fi ay ay ay yenn yoo xam ne ko luubal et tout ça euh, ça vous inspire quoi comme réflexion. xam nga li may wax rek sénégalais bi moom moo jël politique def ko métier en fait mais le chinois gëmut loolu. ñun dañu yaakaar ne si politique mën nañ ci euh, yàqal sa morom. wala nga wax loo xamante ni à travers des propos yoo xamante ni c'est des injures ou bien à travers des accusations mën nga euh, genre amaale si li nga xamante ne nii moom mooy code de popularité wala nga am ci benn benn benn benn benn communauté bu lay suivre te loolu nax sa bopp la. te euh, en droit dañ koy waxee ki nga xamante ne moo accusé moom moo war a indi ay preuves. bu fekkente ne nii moom génn na wax ni kat lii la kiy def ak lii ak lii lii ñooñu tamit am na si ñoo xam ne génn nañ ko si mel ne le euh, président Aly Ngouille Ndiaye génn na. Mhm. def communiqué am ne jamono jooju sax nekku fa woon. Mhm. ah kon nag ñun ñi nga xamante ne ñooy la bas peuple ñun ñooy mujj amaat problème parce que duñ xam fa la dëgg féete su boobaa nous serons un peu marginalisés entre de deux. Euh, kan lañ war a gëm. ki nee na lii la kii nee na lii la ba euh, ba pare DG Semi Sen nekk docteur Ousmane Cissé. Euh, ba mu fay nekk gis nañ benn communiqué bu muy expliquer ne lii Macky Sall nekk fi woon kii lii euh, nekk fi woon kii ak kii ak kii mais ñun en fait ñun ñi nga xamante ni on n'a pas accès à ces informations comment est que ñun fan la ñu war a gëm. Mhm. je pense que ils doivent ñu bàyyi xel donc le bas peuple ñi nga xamante nii ñu a ñun genre amuñ information yu mag yi. d'accord. am na solo peut-être euh, balaa may euh, dalal suñu invité bi moom ma jox la benn question en attendant tontu ko mm-hmm. euh, par ak toujours ça mm-hmm. kii wax na kii tontu tey jii mm-hmm. li gën a leer mooy que que ces affaires là ces accusations soient portées au niveau de de de des tribunaux pour que ñu leeral ko c'est c'est un devoir quand même pour ñoom ñi ñu jiite pour ñu moom laay wax léegi léegi c'est un c'est un devoir vraiment c'est un devoir te c'est un devoir boo xam ne population bi Kajoor daf ko soxla bu baax a baax a baax parce que on parle des deniers publics on parle des ressources yoo xam ne la population moo ko moo ko moom c'est-à-dire ñoom dañ leen délégué seul tout simplement des compétences et on a des de contrôle qui sont qui sont là il y a aussi les tribunaux il y a aussi les tribunaux qui sont qui sont là il a le procureur qui est là qui est le procureur de la République moo xam ne moo fi taxawal li nga xam ne mooy mooy le Séné le Sénégalais donc vraiment bu ñu soxla genre genre genre genre élément yi ni mel moom daf cee war a mën a taxaw parce que bu population bi taxawee vraiment di la ci nga xam ne moom la ñuy gérer li nga xam ne mooy les ressources de la nation donc le procureur de la république je pense waru cee xaar kenn donc dès l'instant que dégg na des allocations qui sont aussi graves que ça donc moom war na mën a autosaisir donc ubbi li nga xam ne mooy procès wala mu ubbi information judiciaire wala enquête lu ñu ci mën doon nit ñi xam exactement lan moo ci am parce que Kajoor bu ñuy wax transparence wax bonne gouvernance boobu ba tey ñu ngi koy wax la ñuy soxla ci li nga xam ne mooy l'état ak li nga xam ne ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy ànd cest ni procureur lu mel ni vraiment les magistrats ñu régler ce genre de situation parce que on en a besoin vraiment Kajoor parce que yii nii dafay andi yu bon bon bon ci li nga xam ne mooy réew. on va permettre ki nga xam ne moom mooy euh, suñu deuxième invité mu sànni ci kàddu balaa ñuy dugg ci waxtaan bi euh, serviteur la. ils veulent devenir euh, ils veulent donc euh, remplacer Macky mais ils se permettent quand même d'arriver en retard xam naa dinañu wax fan la teg loolu nous sommes avec Abdou Kane Euh, nekk na conseil municipal euh, responsable euh, les serviteur bu Golfe Sud c'est lui qui nous est arrivé en retard ñu ngi lay jaajëfal bu baax c'est un plaisir di la dalal. plaisir partagé Kajoor maa ngi lay nuyu di nuyu sama ko man damay tiiñe la télé xam xam naa loolu xam naa loolu xaar naa loolu baax yow <laughs> alors maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu di nuyu euh, suñu co-débatteurs yi nekk ci plateau bi yëpp. Hmm. Euh, di nuyu également les Sénégal di et de la diaspora ñi ñuy suivre yëpp à travers euh, cette excellente émission Allô Sénégal di émission matinale boo xam ne ñu bari dañ koy topp ndax importance bi mu am di débattre sur les actualités ô combien intéressant waaye aussi di nuyu vraiment serviteurs yëpp fu ñu mën a nekk ci réew mi ak ci bitim réew. di wax ni retard bi encore une fois. Euh, réew mi ni mu demee la. tout sauf embouteillage waaw non très sincèrement. Kader je te bu ñu la waxee doo gëm mais yàlla xam na ni depuis sept heures. Ah, je suis sorti chez moi une heure plus d' heure de route laa def ba tey mënuma ma egg si fii. donc c' extrêmement compliqué je t' assure. c' est ça waay léegi ah. <laughs> léegi ñu dem juste en un mot par rapport ak li ñu waxtaanee comme ça ñu ñu continuer euh, impression bi nga am suite à cette déclaration boo xam ne maître Moussa Diop def na ko. Euh, daal laal ba ci président de la république quelque chose d'assez grave kii euh, Aliou Ndiaye génn na ne euh, loolu du dëgg mais est-ce qu'on doit s'en arrêter là non bien sûr que non xam nga li si gën a triste mooy réew mi léegi euh, dañoo commencé am cette habitude la mooy di def des allégations gratuite da ngay gis maintenant n'importe qui il se lève à n'importe quel moment jóg def des allégations graves yoo xam ne loolu bu ñu nekkee bu ñu nekkee dans un pays sérieux procureur moom ci boppam moo warul xaar sax ñu maanaam mbir mi kenn di ci def benn jógu moom moo war a autosaisir automatiquement mais li ñuy gis mooy état à chaque fois bu fekkee mbir la moo xam ne ci opposition bi la dal lekk l'état peut être très rapide. Mhm. alors que bu fekkee mbir la moo xam peut-être ñi mu dal dañoo bokk ci gouvernement bi wala ñu bokkoon ci gouvernement bi sax. Mhm. ba tey seen génn ñu xëy laam-laamee wóor naam wóorut gis ni l'État peut prendre son temps. Mhm. li ñu lay wax comme discours mooy le temps de la justice n'est pas le temps des hommes euh, pour pour c'est des alibis yoo xam ne moom la ñuy moom la ñuy teg ci table ji mais seulement pour jël temps gis nañ fi affaire Covid 19. Mhm. Hmm? ba coow li bare dañoo génn ne voilà dinañ ci dinañ ci def leeral mais ba sànq ba léegi. donc à la limite de la justice fait son cours. gis nga ba léegi donc c'est des choses yoo xam <laughs> mbir la yoo xam ne. war nañ ci war war nañ ko war nañ koo xoolaat. yenn allégations yi euh, saa yu su amee rek ñu fexe euh, faire la lumière sur sa fexe ba éclaircir Sénégalais yi mën a mën a mën a leer ci seen bopp bari na cette semaine et la semaine dernière ay ay propos yoo xam ne gis nga ko. comment c'est j'en parlé tout à l'heure avec le député euh, Malick Diop. Mm-hmm. ak yi nga xam ne moom la wax ci alar yu ñu jugal jëlee dugal ko dafa taxal même sax la communauté euh, euh, mouride entre pas moom mais Canaar bi ko def taxal communauté mouride bi comme si ñoom ils ont besoin de recevoir de l'argent de de de qui que ce soit. pour di jàppale qui que ce soit loolu yabaate mun tawee. su loolu aussi mais bien sûr bien sûr c'est ça le problème euh, maintenant quitte à ce que vraiment euh, li nga xam ne moom la Sénégal yëpp di rêver mooy am réew moo xam ne très sincèrement la justice. Euh, sera effective l'indépendance de la justice sera effective loolu mooy permettre yu mel nii bu amee euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk justice du ñu am ay arrière pensée du ñu xalaat du ñu xool sax nit ki kan laa ak fu mu bokk wala ban dayoo la am dañuy xam ne rek c'est un citoyen sénégalais bu wax ay wax yoo xam ne ça concerne les sénégalais et que euh, lumière mérite d'être faite sur cette affaire là et que vraiment ñu mën ci éclaircir les sénégalais loolu c'est notre rêve le plus absolu mi ngi noonu donc dañuy euh, ñëw ci waxtaan wi rek euh, quand on parle de leadership et d'entrepreneuriat yow euh, ki nga xam ne moom mooy Wakil Wali naka la. Wakil euh, Mouhamed Ba. tour bi moo ma neex wakil bi moom a gën a neex. <laughs> ndax li muy représenté ak li mu li mu méngoo ak li ngay def. on parle d' entrepreneuriat on euh, de jeune on parle de leadership euh, de la jeunesse yow nga nekk exemple exemple bi parce que yaa ngi jiite li nga xam ne moom mooy coordination des des jeunes leaders foofu noonu comment se porte l' entrepreneuriat jeune au niveau du Jolof. Bon, l'entrepreneuriat du Jolof euh, euh, des jeunes se porte absolument à merveille. Ah pour le moment quoi parce que récemment nous, nous avons organisé un concours projet mmh. dans lequel nous aurons récompensé les 10 meilleurs à travers le, la journée la cérémonie officielle de la jeunesse qui aura le 30 décembre. Qui Olof, c'est vrai Ah oui, excusez euh, Voilà, d'accord. <laughs> Donc récemment ñu ngi organiser ah. benn euh, ñu ngi waajal benn journée bu tudd Jolof Awards. Mmh. Donc si Jolof Awards bi dañ ci lancer wala benn concours projet. pour euh, ñi nga xamante ni mooy les jeunes porteurs de projet mën a déposer ay projet après ñu on va faire une sélection interne d'ailleurs c'était hier même euh, mooy euh, nekkoon date de clôture bi mm-hmm. on a reçu pas mal de projets des projets vraiment qui sont vraiment pertinents mail bi mu ngi sama téléphone actuellement genre les jeunes ont déposé des des projets de transformation des projets de yoo xamante ni biodigestion de euh, projets yoo xamante nii agriculture des projet de vente des projet de mise en place de butique moderne euh, de, euh, de moderne ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ni euh, jeunesse bi ñu ngi koy bëgg a def mais lenn lañ gis mu sooxee ñoom amuñ financement da ngay gis ku yor projet boo xamante ne nii franchement man projet yi ma jot man jàng naa maa ngi master mais projet yi ma gis fii man musuma xalaat ni sax les jeunes du Jolof war nañ ko mën a porter ñii ñu ngi ci école euh, lu si mel ni ISEP ñii ñu ngi ci yeneen écoles yi genre am nañ genre qualification mais mënuñu genre financer seen projet mais xel bi c'est-à-dire l'esprit entrepreneurial que ni kat man je dois me lever waruma xaar nguur waruma xaar kii waruma xaar kii dama war a jug amal sama bopp tegal sama bopp sama entreprise. Mhm. Euh, xel moomu mu ngi Jolof mu ngi ci jeunesse bi. ku wax Jolof wax immigration parce que Louga. Euh, ñëpp xam nañu seen région d'immigré bëri na ñoo xam ne rarement ngay dugg ci famille bu amul euh, ñu immigré tey ñu nekk di traversé li nga xam ne moom mooy euh, immigration clandestine bi jeunes yu bëri di daw di dem seen yoon démb laa jóge Lompoul foofu moom il y pratiquement plus de jeunes mm-hmm. tey jii yéen ban liggéey moom ngeen ngeen war a mën a def en tout cas lan ngeen am comme comme chantier au sein de de de cette coordination là pour ne serait-ce que mën a dissuader parce que saigné bi ba léegi muy continuer les gens ont toujours envie de partir. effectivement xam nga keroog dañu doon def point de presse euh, si Jolof fa laa sa sax d'ailleurs ñu def point de presse média yi ñëw sama secrétaire général mu ne <laughs> euh, nañ toog fii quoi genre on a tout devant nous. Mm-hmm. après émission bi jeex. muy muy remettre en cause boppam. li mu waxoon <laughs> comprendre nga. Uh-huh. mu ne genre ñun dañoo am une charge boo xamante ni nii c'est une charge supplémentaire en plus d'être jeunes nous voulons participer au développement de notre pays au développement de notre localité. tey boo xoolee ba tey ci Jolof Awards bi dinañ ci animer deux panels panel bu si njëkk bi mooy l'immigration clandestine retour d'un fléau en face d'une jeunesse en perte de repère. Uh-huh. c'est-à-dire non seulement day dem ak dikk day dem ak a parce que parce que d'année en année ngay gis muy gën a yokk di gën a yokk di gën a yokk mais bii fi mu dikkaatee dafa graw parce que dafa dikkaat fekk une jeunesse boo xamante ne ni amatul benn repère. kon tey jii c'est une c'est une double charge de la part de la coordination. de euh, premièrement discuter sur l'immigration clandestine deuxièmement discuter avec la jeunesse parce que dañoo nekk en perte de repère d'abord le seul fait que ñun ñëpp ñu toog plus de mois jànguñ. ça c'est un ça c'est un c'est loolu précurseur la élément la boo xamante ne nii ku ko bàyyiwul xel loolu rek mën na laa yóbbu loolu kese mën na laa yóbbu te teg ñun nag la coordination des jeunes leaders nous sommes prêts comme li ma ko waxee gars yi descendre sur le terrain rencontrer les jeune comme ni ñu ko commencé di defee. Mhm. rencontrer les jeunes euh, dékku seeni ay problèmes jëm leen a accompagner bien vrai que euh, euh, dina métti parce que tey jii ñun. en tant que coordination mënuñu financer benn projet mais dinañ def le tout pour indi fa ay organisation wala ay entreprise wala des personnes dans le secteur privé yoo xamante ne nii dinañ gis benn projet bu rentable léegi léegi dekee si seen 10 millions def ko si parce que xam nañ ne projet boobu noonu projet bu rentable la c'est un projet boo xamante ne nii buñ si defee seen xaalis duñ ko perte d'accord euh, mu ñëw ci monsieur Kane peut-être un mot par rapport ak initiative bi balaa ñuy ñëw ci question boo xam ne yow rek lay concerner directement. Euh, waaw euh, déjà di di ko féliciter ci euh, li nga xam ne travail important bi nga xam moom lañ nekk di def dans un monde obscur même parce que fi ñu toll nii dañoo soxla ay jeunes yu mel nii des jeunes dynamiques ambitieux yoo xam ne aussi dañuy assumer lekk bi nga xam ne moom la ñu amee te moom lañ nekk def nii dans l'entrepreneuriat muy lu am am solo. Euh, bu ñu jógee rek ñoom fexe euh, fës ci kaw dina am ñoo xam dinañ suivre dynamique bi dina ñoo xam ne par effet d'imitation dinañ mën a topp see dynamique là te dafa wax lu am solo mooy euh, repère. gis nga jeunesse bi léegi li leen gën a sànq mooy ñàkk repère. xam nga naturellement ñi nga xam ne ñooy gën a fës dans l'espace public naturellement ñooñu il peuvent servir de repère. te malheureusement léegi ñi ngay xam ne ñooy gën a fës di feeñ ci à travers les les télévisions les plateformes di wax seen kàddu jukk ñoom ci seen bopp waxatuñu jeunesse bi lu leen di dimbali kenn ku ci nekk sax booy boo koy déglu yow da waxatuñu sax pour ñoom non waxatuñ cest à kenn ku ci nekk wax maanaam ñi nga xam ne réew mi ñor na leen wala jeunesse bi ci jafe-jafe ñu ñor na leen bare tut ñii euh, jeunesse bi nekk ci jafe-jafe yi mooy tax ñuy gën a dund parce que liñ naan ki nga xam ne njariñam ci say nelaw la la nekk du bëgg nga yeewu mhm. ñeneen ñi tamit dañuy fekk jeunesse nekk ci jafe-jafe yooyu ñuy profité ci loolu pour am un gain moo xam gain politique wala lu mu mën a doon te loolu c'est extrêmement inhumain euh, te dafa am euh, benn bindkat algérien euh, Mohamed Mosselehul de son nom de plume Yasmine Hadra moo doon wax naan aucune nation ne peut survivre sans mythe et aucune jeunesse ne peut s'épanouir sans sans idole idole bu ñu ko waxee muy repère rek pour man dañoo war a fexe ñi nga xam ne ñoom ñooy des hommes yi nga xam ils peuvent servir de repère ñu projeter la lumière sur ñoom ba jeunesse bi gën a mën a xam ñan la ñu war a déglu ak ak ak fan la ñu war a teg seen tànk pour man c'est important bokk na si une bonne partie des jeunes ñuy hmm. projeter seen lumière ci Euh, le leader des serviteurs muy sa leader euh, tey yéen au sein parce que là on est à plein dedans par rapport a à, à au débat programmatique tey hmm. euh, par rapport aux l'emploi des jeunes l'entrepreneuriat la situation en général des jeunes euh, seen axe yu gën a mag ci seen programme lan la pour redresser la tendance. waaw xam nga ñun euh, le maître mot de notre programme c'est la c'est la souveraineté mooy fexe ba moom sa bopp léegi nag li njëkk mooy fexe ba ressources yi nga xam ne réew mi am na ko. souveraineté on en waaw mais xam nga xam nga xam nga loolu dafa war a nekk une réalité maanaam la plupart du temps maintenant dañuy gis ni les politiciens li ñuy am comme programme ay slogan kese la pour avec leur triptyque là séduction élection trahison ñun léegi dañoo bëgg loolu yëpp nekk une réalité vraiment bu ñu waxee euh, euh, li nga xam mooy souveraineté mu nekk lu effective te nag du loo xam da ngay tëb tëb wax ko du tam loo xam da ngay bëgg a ñëw euh, un changement radical boo xam ne doo ko réfléchir day doon loo xam ne ci xam-xam nga koy teg gëstu ko xool les tenants et les aboutissants déjà apprendre de ce qui s'est passé ñi fi nekkoon ils ont de très bon programme léegi lan moo tax loolu jàllul. parce que Sénégal ñàkk ñu ay borom xam-xama ñàkk ñu tamit li ñuy wax rek dafa nee nañ sax léegi euh, tellement on a fait des séminaires des réunions que même léegi waa extérieur bu ñu ñëwee dañ leen di ubbil tiroir rek ñoom ñu jël suñu conclusion yóbbu dem jëfee ko mais ñun. Euh, on est dans dans l'incapacité maintenant de de de passer à l'acte suñu président da koy wax pour pour pourquoi prévoir si merveilleusement et et et pouvoir si médiocrement maanaam bu fekkee rek ci ci ci phase de de de prévoir lañ nekk dañuy gis di ne on a des excellents leaders waaye bu desee lu dul jëfee nag fa la problème bi di nekk moo tax ñun li ñu gën a bëgg mooy fexe ba ressources yi nga xam ne mu ngi Sénégal ñu redistribuer ko équitablement loolu day permettre kenn ku ci nekk dootul amati kumba am ndey ak kumba amul ndey sa Sénégal à deux vitesses là bi nga xam ne maître Ali Badara Cissé doon na ko wax. Mhm. un Sénégalais à part entière et un Sénégalais entièrement à part. loolu bu fi jugul rek jeunesse bi dootuñu gis seen bopp ci réew mi te tant que gisuñu seen bopp ci réew mi vraiment du ñu am courage du ñu am détermination pour yaakaar ni fii am na lu fi des lu war a mën a tax ñu toog fii ngir liggéey fi am fi dara dañ naan la sax fii boo fi yoree sax sa 10 millions investir. da ngay xëy benn jour dara xew ñu yàq lakkal la say 10 millions nga repartir de zéro te eh, exactement loolu moo fi am dañuy gis ñu investir pendant des années mais un seul jour ñëw ñu réduire ko en poudre te loolu euh, pour un jeune boo xam ne eh, il a quelque chose à investir day ragal danaan sax mieux vaut ma dem génn dem ci leneen wala ma xooli leneen donc mooy euh, fexe ba redistribuer les les les ressources fexe tamit ba ñu am souveraineté souveraineté alimentaire ak sécurité alimentaire souveraineté énergétique ak tamit li nga xam ne mooy électricité ñu fexe ba wàññi ko parce que les les li nga xam ne ñu ngi ci entrepreneuriat di taxawal yenn yenn entreprise yi li leen gën a sonal mooy facture courant sëñ bi. facture facture yi cher na ci ki nga xam ne moo yor këram mais ci ki mu gën a cher mooy ki nga xam ne mi nga taxawal entreprise bu ndaw buñ la buñ la defalee facture rek nga bëgg bàyyi liggéey bi yëpp yow dem dem seeti leneen. Euh, Djibril Fall hmm. ci wax ngeen toll aussi donc c'est juste des idées que vous donnez comme Macky Sall en avait donné comme Abdou en avait donné Abla euh, euh, Senghor Abdoulaye Wade pareil waaw xam xam nga la différence mooy ñun wax ba pare def aussi dire une chose di enfin donner son idée c'est une chose mais la matérialiser c'en est une autre ah donc on attend de voir Amadou <laughs> ñu bàyyi la nga xaw nga ma xaw nga marcher un peu sur sur la langue parce que parce que ni ko ni ko ni ko réalise pas. Hmm. donc foofu da nga ciy interpellé bu baax a li nga xam ne mooy les mooy les opposants ak li nga xam ne mooy l'opposition parce que à chaque fois on conçoit bien mais après pourquoi on réalise pas lu waral lool moo tax. politiciens yi surtout les oppo les opposants war nañu xam bu baax a baax li nga xam ne moom la ñuy wax li nga xam ne moom la ñuy dig li nga xam mooy askan bi parce que digle ak boo duggee ci biir réalité yi nga xam ne moom nga fay moom nga fay fekk donc il faudra ngeen def plus d'attention ci aspect aspect bi ni mais parce que yàgg nañu dégg nit di di diggee mais bu ñu yegsee ci biir qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce que bëgg nañ def est-ce que bëgguñu ce que bëgguñu def lan lañ fa est-ce que amul leneen lu leen tënk est que leneen lu leen tënk donc il y beaucoup de choses yoo xam ne des logiques internes de l'État yoo xam ne après ñun on n'arrive pas à comprendre moo tax lu waaye di wax na ko na ko xam mais tam li ma ci gisaat benn aspect mooy c'est-à-dire politiciens yi wax la def c'est-à-dire amuñu programme c'est-à-dire li nga xam ne moom la ñu bëgg a def duñ ko basé sur des sur des faits réels wala sur des statistiques wala def ko étude boo xam ne une étude lay lay nekk c'est-à-dire dañuy wax pour wax nii rek mais après bu ñu jotee euh, le gouvernement du ñu xam exactement comment faire parce qu'il n'avait rien préparé en amont donc lool moo leen di loolu moo leen di rattrapé damay ñëwaat tamp si si si parce que sànq dama koy dégg mooy mooy wax ci ci projet bi c'est-à-dire na la plupart du temps da ngeen di soxla ay ay personnes yoo xam dañuy ñëw aider leen ci li nga xam ne moom mooy moom mooy projet bi moo tax mu bëgg xam exactement lan mooy composition seen seen seen structure bi nga xam ne moom ngeen moom ngeen am yan façon investisseur ngeen am cest à des investisseurs confirmés yoo xam ne mën nañu jàppale les jeunes accompagner leen wala ci biir structure bi y'a que des jeunes yoo xam ne vraiment seen tànk dëgëra dëgëragul wala ñoo xam ne sax ils cherchent vraiment à, à avoir des, financement financements pour vraiment lancer leurs activités ci loolu te da ngay soxla relationnel moo tax may laajte lan mooy composition seen structure bi des entrepreneurs confirmés wala des entrepreneurs qui débutent wala ñoo xam ne vraiment ils commencent mais c'est un peu compliqué. Euh, propos de la coordination des jeunes leaders et entrepreneurs du Jolof c'est pas euh, des entrepreneurs affirmés comme par exemple ñi nga xam ne comme ay ñi nga xamante ni tey jii ñoom tout à l'aise non mën naa en fait c'est un regroupement euh, des jeunes de 19 communes que je préside maintenant ñun ñoo bëgg a c'est-à-dire parce que ñun on a benn am nañ benn avancée sur les autres parce que ñun tey bu ñu neexee dem deer dugg waxtaan ak ñoom man su ma neexee toog monsieur le ministre ne ko léeg lii keneen ak keneen noonu maintenant nan la ñuy def ba affaire boobu tourner en faveur des jeunes du Jolof parce que man comme li may wax gars yi Euh, ne demande pas ce que tu euh, ce que ton pays pour toi mais dis-toi ce que toi tu peux faire pour ton Le pays. pays. Mm ñun pays boobu lañu jël def ko Jolof sama contact yi bu ñu may suivre dañu naan ndax mën naa ñëw bokk Jolof parce que yéen moom tellement Jolof da leen a gàtte may leen genre ñun fii la ñu commencé ëllëg peut-être ce sera Sénégal mais ak sa ak yi dañoo def focus. bay sa tànk bay saweewu tànk. Mhm. on a euh, dem nañ rencontrer euh, directrice bu DER ak euh, également bu 3 pour pour ne leen que ni ñun on a une journée si seulement liggéey moo leen tax a jóg financer les jeunes comme seen seen seen structure yëpp pour financer jeunes yi la bu dee financé jeunes yi kese moo leen tax a jóg kenn du leen fa njëkk ministre de l' agriculture ministre de l' agriculture. monsieur le mais waaw mais vous y allez avec la forme aussi. oui avec la ñun ñun moom nekkuñ ci affaire yooyu noonu. ñun on y avec la forme def suñu demande d' audience. après dem déposer ko secrétaire am suñu a topp cas bi. maintenant boo demee le ministre de l' agriculture presque mën naa ni quatre vingt pour cent des projets reçus sont des projets agricoles euh, yeneen yi c' est des projets liés à élevage bëgg nañ ministre de l' agriculture ñëw ci journée bi ànd ak c' à dire euh, euh, quelques membres de son département pour xool projet yi pour xool ce que la jeunesse envisage ambitionne de faire dans son pays parce que tey jii mënoo ne tout ce qui se pour moi cent moi et contre moi bu fekkente ni nii ñoom ils veulent pour la jeunesse kon bu jeunesse di def waruñ fa absent dañoo war a ñëw teew déglu li gars di wax bu fekkente ne nii lii euh, euh, genre charmé na leen ñu daldi si def. daldi si mais yéen da war a collaborer ak ñoom même dans l'organisation de ce forum normalement. effectivement c'est ce que je vous ai dit ñoom ñëpp bind nañ leen. pas que ñu ñëw toog en en spectateur ñëw di seetaan. effectivement mais en amont. Euh, comme ba le jour J. da mhm. ngeen war a am collaboration bu bu étroite ak ñoom quand même. bind nañ leen ñoom ñëpp. ñoom ñëpp secrétariat coordination des jeunes leaders bind na leen ak man yooyu dem nañu yóbbu lettre yi mais la wax suba tey suba tey suba ginnaaw suba ba à la fin ñu xam ne parce que à la gis ne kat lii kat événement bu nar a am solo la parce que politicien noonu lay fonctionner organiser woon nañ daaw bu mel noonu à peu près ñu tuddee ko journée des jeunes leaders du Jolof c'était la même chose gars yi dañuy seetaan ba mu des ay 2 3 jours ñu xam ne lii kat lu nar a la ñu def détour ñëw daal di daal di daal di installé wu su bu boobaa tamit ñun c'est la jeunesse ñu ñooy pertaat parce que démarche yi ñu def yëpp yëpp yëpp yëpp tey jii kenn mënut a xayma affaire yi. Mhm. donc ñu ngi leen ciy woowaat bu baax di si woo ministre maire Samba Ndiobène Ka. dina dina ñëw si si si yooyu noonu. mais bu ñu ñëwee ak euh, monsieur Kane euh, yéen a ngi waajal élection yi. Euh, tout récemment gis nañu euh, la société civile ba léegi sax mu ngi continuer di di manifester benn doute bu mu am par rapport à, à la fiabilité du fichier électoral euh, ñenn ñi di soulever la question du report des élections parce que nee nañu les conditions ne sont pas réunies pour élection au niveau de des serviteurs yéen est-ce que vous avez foi en en en en ce processus électoral et le fichier notamment et autres Euh, euh, ba pare est-ce que pare ngeen fan ngeen toll également ci parrainage yi parce que euh, nit ñee ngi wax mais <laughs> àlekale gi mooy parrainage yi est-ce que vous avez fait le point par rapport au parrainage ak yooyu maanaam ndax lépp yemb na ngir mën a dem ci élection yi waaw merci boobu Kajoor déjà damay rebondir un rek ci li ñu doon suñu suñu li ñu doon wax sànq mooy le fait que li li na nekk différence entre président Pape Djibril Fall ak ñi nga xam ne ñoo li mu wax léegi dafa bari ñoo xam ne bu ñu nekkee opposant dañuy diggee waaye bu ñu toogee rek da ngay gis un changement systématique mel na du woon ñoom certes Sénégal dafa bari ay groupe de pression par ay groupe de pression reproché nañ ko ko de mooy la Pape hmm. ba mu toogee ci plateau yi ba nit ñi bëgg ko hmm. ba mu ba mu wëlbate ko Euh, dafa changé dafa changé nee nañu dafa changé discours de ba mu dem fee ñu di ko yuuxoo. waaw nee nañu xam nga xam nga xam nga xam nga yuuxoo moom politicien yuuxoo yàgg na ci moom mm. mais l' essentiel mooy yow na la wóor que que tu sois quitte avec ta conscience. ku nga xam ne il est objectif di suivre le président Pape Djibril Fall. mën na dóor loxoom waat la main sur le Coran ne Pape Djibril Fall il est l'homme le plus constant des acteurs politiques li mu doon wax démb ba tey moom lay wax. seulement que maintenant à un moment donné. Euh, ñenn ci population mën nañ bëgg nga féete fenn ñu bëgg la diri yóbbu la fenn boo fa nekkul naturellement dañuy dañuy wone seen seen mécontentement jàpp ni da ngaa changé fekk yow changé wul ñoom la seen intérêt changé. parce que ñoom bët bi ñu la doon xoolee ak nopp yi ñu la doon dégloo tey jii moo soppeeku ndax yow li ngay wax rek à chaque fois mooy les vérités de l'heure tey nag les vérités de l'heure mën na pencher de leur côté boobaa dañ naan yaa baax yaa bëgg réew mi yëkkati la. suba nag vérité bi mën na pencher feneen boobaa nag ñu xalab la waaye yow na nga wóor ni. li ngay défendre chaque fois mooy les intérêts exclusifs des Sénégalais pour vous dire ça gis nga assemblée nationale président Pape Djibril Fall il est le seul boo xam ne mosu fa tudd le nom de parti politique yaa ngi seetaan plénière yi lay am la plupart des députés bu ñu fa nekkee ils sont dans des débats de personnes ah mais moom moom kese moo fa nekk aussi. xam nga donc non très sincèrement. ñoo xam ne xoolal partiam su ko fa tuddul aussi on peut comprendre bëriwul moom non cest à mën nga xam nga mën nga wax di wax di wax loo xam ne sa day. intérêt sa parti wala di wala di wala di xàllal sa bopp. parce que fi nga toog perchoir boobu noonu ñi lay Sénégal yëpp dañ lay déglu. Mhm. kon am nga benn benn ñi nga xam ne benn public bi en fait. Mhm. donc mën nga fa profiter di lancer message yoo xam ne c'est pour avoir un gain politique. mais mosu ko xalaat gis nga je vous dis. Mhm. bari na liggéey yoo xam ne moo ngi koy def te du ko mën a fësal parce que président Pape Diouf Fall il n'est pas du genre à se victimiser wala di def dara di génn di ko fësal naan def naa li def naa li mais bari na non mais bari na loo bari na ci bari na luy am ci espace politique mm-hmm. mais bari na loo xam ne mi ngi koy lijjanti tey jii sans tempête ni trompette mm-hmm. gis nga Jàmminaar ba ca Saint-Louis mm-hmm. Jàmminaar géographiquement c'est le c'est c'est c'est plus peuplé dans Saint-Louis Pape Diouf Fall moo njëkk a tudd turu Jàmminaar ak biir assemblée nationale te pourtant il n'est pas député de Saint-Louis les députés de Saint-Louis sont là-bas ba mu ko defee di wax seen problème de restructuration bi ñu amoon mais les habitants de Diambinar dañoo profité def conférence de presse ne nañ saisir occasion bi parce que au moins am na député boo xam ne tudd na tey suñu turu dëkk fii ci assemblée nationale te pourtant il y a des députés de Saint-Louis là-bas mais moom xoolul kii fii la bokk ak fee la bokk ñii kii lañ fal ak faluñu kii maa war a waxal kii warumaa wax ak kii au moment où c'est des citoyens il est le député du peuple donc moom moo war a taxaw seen mbir. handicapé yi taxaw seen mbir weesuwul ñuy voter loi voter projet de loi moom mu nekk xel comme di bay foofu. xam nga loolu xam nga xam wax loolu donc moom. après nag euh, lan teewaayam foofu ci assemblée. xam nga xam nga loolu tamit c'est une autre erreur mooy li ma lay wax léegi sa à dire nit ñi léegi booy topp réseaux sociaux yi. Hmm, xam nga léegi jamonoy intox lañ nekk. Hmm. Euh, fausse euh, diffusion de fausses nouvelle Euh, di fake sax lañ la ñuy wax léegi cest à booy topp réseaux sociaux information nga ko jëlee foofu di nga jàppee dara dëgg ba jël ci jugement fonde ci say argument wax a wax a wax ba mar fekk na yow sa argument yëpp da nga ko fonde sur du faux gis nga Pape Djibril Fall foto boobu ñu génnee di ko wërale Sénégal loolu du xel ko bien vrai que xelam ak xolam yëpp mi ngi woon xel kom ndax relation bu moom ak Serigne Saliou xam nañ ko mais boobu dakaar la ko fekk photo boobu mbalem poroxaan mi la woon yàgg na du sax ren du sax 2023 seulement que maintenant dañ koo gis mu nekk ci tool am tenue bi mu sol xel comme jot am ñenn ñu xër ci taalibe yi photo bi ba mu génnee rek ñu jàpp ne xel comme la ñu bari maintenant dem ba ne président kat xel euh, assemblée daa jot mu bàyyi fi liggéey assemblée dem xel comme fekk ko xel comme pour pour pour pour pour lever cet équivoque là mi ngi ko fekk Dakar mi ngi woon dans des travail de commission yu intense parce que malheureusement aussi euh, assemblée liggéey bi ci ëpp solo day mooy les travail de commission les ministres passent là-bas et et Pape Diouf Fall ça lui arrive parfois dans son travail muy bind directement di saisir un ministre sur des faits di ko wax ay yoo xam mbir yoo xam ne ci loolu mooy tax. muy lijjanti en toute légitimité non. en toute légitimité gis nga gis nga xombal Saloum dafa am un vieil de soixante-dix ans ne président Pape Diouf Fall c'est la am naa soixante-dix ans c'est la première fois may gis élu boo xam ne daf fi ñëw dem ut ba am dellu nee na c'est la première fois mu gis ko te am na soixante-dix ans. te ñooñu président Pape Diouf Fall moo leen kaasal assemblée mosu ñoo am courant. Mhm. ba mu leen kaasalee nee na récemment ñu ngi commencé di leen installer pour defal leen courant. est-ce que kaasal na la même chose les besoins de de fi nga xam ne foofu la bàyyi ko muy caajaay. bien sûr. mais Thiadiaye Thiadiaye président Pape Diouf déjà am na lu mu fa war a inauguré muy euh, une salle informatique te au delà euh, euh, gis nañ ko yu bari yoo xam ne ay ay ay sorties yoo xam ne def na ko yoo xam ne exclusivement c'est dédié à Thiadiaye parce que ah. Thiadiaye xam nga c'est son terroir de cœur et de sang déjà notre caution bi nga doon laaj léegi mhm. les 10 pour cent de la caution mais Thiadiaye ñoom ñoo ko joxe mhm. parrainage bi aussi ñoom ñoo ci def taxawaay bu ama am solo. mu toll parrainage bi parrainage bi. gaa ngi euh, avancé à chiffre donc damay dama danga may may ma sant bu baax sénégalais yépp nag d'ici et de la diaspora très franchement. parce que coow li bari na waaye ñun ñoo ngi def un travail souterrain boo xam ne bis bu euh, pandémie wuree dinañ xam ne liggéey moo ëpp solo wax xam nga ñun maanaam bokk ci coow li xam li xew ak nekk sur l'essentiel da koo gën ñun li ñuy def nii mën nañ ko de chaque xam nañ ni ñu koy defee xam nañ stratégie Pape Diouf Fall koo xam-xam ni c'est un fin communicant c'est un journaliste donc il connaît les schémas à pour que tout le temps muy nekk euh, muy nekk ci actualité ñu koy wax mais loolu ëppul solo da wax da ngay wax a wax ba mujj dugal sa bopp lépp solo mooy nga xam nga bañ a jaawale l'ombre et la proie boo bàyyee proie bi rek ci ombre bi ngay nekk proie bi da lay rëcc moo tax ñun très franchement parrainage bi li nga xam ne moom lañu ñu doon laaj li ci gën a néew comme li ci gën a bari suñu borom dogal na matal nañ ko duñ fi nekk nag di joxe ay chiffres parce que amul solo. moo gën a wóor boo dajale woon 2 millions de chiffres tamit 56 mille 56 ah, mille 58 mille 8 900 doo ko dépassé. loolu ngay déposé donc loolu ngay joxe en fait. Pape Djibril parce que yaa ngi koy yaa ngi koy posé yaa ngi koy posé question bi c'est-à-dire ci situation bi nga xam ne moom la Pape Djibril Djibril Fall nekk maanaam situation de non aligné nga xam ne moom la moom la nekk cest fois mu wax. loo xam ne nit ñi mën nañ ko jël yóbbu ko de ce si ci wala de de ce côté de ce côté donc damay gis bu ñu xoolaatee vraiment depuis quelque quelque temps euh, Pape Djibril dafa mel ni capital sympathie bi dafa mel ni dafa dafa wàcc te loolu damay jàpp ne est-ce que situation bi nga xam ne moom la mel actuellement maanaam situation de non aligné bi xamuñu exactement ban tànk lay ban tànk lay feccee mi ngi ci digg bi xamuñu fu mu far donc loolu est-ce que desserviru ko actuellement parce que boo xoolee bu baax a baax c'est-à-dire bu ñu analyser contexte actuellement mën nañ jàpp ne mu amoon dafa wàcc bu baax a baax a baax donc est-ce que situation bi ni mel desserviru ko aussi. Hmm, merci xam nga xam nga xam nga nii nii nii non bi bi daloon gars yi. Kajoor non xam nga du nii xam nga xam nga xam nga xam nga loolu sénégalais bëgg ko de. Kajoor xam nga yéen vous êtes des journalistes yéen euh, c'est-à-dire au-delà du citoyen lambda yéen seen niveau d'information dafa élevé. yéen bokk leen ak benn Abdou Kane bi nga xam ne moom peut-être information ci réseaux sociaux kese la ko mën a jëlee wala 7TV kese la mën a seetaan Allô Sénégal. tey am na ñu gën a informer <laughs> mais mais mais est-ce que c'est la bonne information c'est ça le problème. Ah. la bonne information. xam nga information dafa am solo. dañuy wax en temps de guerre même au-delà même pas en temps de guerre dañuy wax kii détient l'information détient le pouvoir. le pouvoir information c'est le pouvoir. te dafa bari loo xam ne boo ko toppee ci réseaux sociaux yi yow mii Kader. suba bu neexoon ñenn ñi bu neexoon gars yi mën nañ laa peinture peinture peinture ba bay xool sa bopp ci télé bi da nga naan kii est man la waxal en fait cest dire boo leen toppee ci loolu da ngay dem ba jàpp ni nit yëkkatiku na toll na fu kawe. fekk na kooku chaque ma gis ko bu teyee su ma su ma waxee. xoolal ñu ne fii la far bu suba su ma ñu fii la far. Kajoor Kajoor je te gis nga bari na ay leaders yoo xam ne xool bari na leaders yoo xam ne boo leen gisee à travers seen doole bi ñu am ci réseaux sociaux wala ci ci ci plateforme yi da ngay jàpp ni ñu ama am solo lañ te yàlla xam na ni def mën nañoo def dix ans ci politique siège sax amuñu ko siège laa la wax amuñu ko. waaw mais pour en moom laay si question laay ñëw gis nga capital sympathie bi. dañoo dafa dañoo bëgg a jaay nit ñi ne Pape Djibril Fall nit ñi gëmatuñ ko te loolu mënul nekk. gis nga Pape Diouf Fall yàlla xam na ni au siège chaque jour dafa dem ba agenda am sax moo ko mayatul gis nga journaliste yu bari dañuy kaas naan Pape Diouf Fall lan moo tax kenn mënu ko am ci plateau parce que justement il reçoit de matin au soir jusqu'à des heures tardives de la nuit des délégation des femmes yoo xam ne il ne cesse de venir et de de de, de participer à, son idéologie mais loolu mënul am ak ak des installations de cellules un peu partout dans le pays plus de 400 cellules installées dans les 557 nga bëgg ni ko capital sympathie am dafa wàññeeku loolu mënul nekk. léegi nag mën am ñoo xam ne dañoo loolu loolu lañ bëgg a gëmloo sénégalais yi pour pour parce que am na sénégalais yoo xam ne lu lu fu masse bi nekkul rek duñ fa nekk. Mhm. ñoo xam ne par exemple dañuy nekk au brebis galeuse coow li fu mu gën a baree rek fa la ñuy dem léegi nag ñun on ne va pas crier avec les loups. waaye xam nañ liggéey bi ñu war a def kan dafa mel da nga mel da ngay da ngay da ngay sànni xeer wala dafa wax ni. non très sànniwuma xeer daa am ñoo ko bëgg daa am ñoo damay wax rek li xew damay damay def un une analyse globale ci li xew ci espace politique yéen ñëpp yéen a ngi koy gis en fait. Euh, li xew mooy li nga xam ne moom lañ lay présenter souvent dans les médias ak la réalité bokkul gis nga récemment France 24. Mm-hmm. dafa ñëw def immersion dans nos locaux di xool le travail important qu'on est en train de faire. un travail techniquement sérieux yàlla xam na ko xoolal des équipes yoo xam ne ñii sens de la transcription ñoom ñoo yor fii si def transcription kese des équipes yoo xam ne ñi saisi kese la ñuy def des salles spécialement dédiées à ça mais bu ñu suñu médias yi bu ñu amoon cette possibilité yi déplacé wu di fekk leader yi fi ñuy nekk di xool ban liggéey lañuy def yàlla xam na ne dinañ xam ni jël nañ nit ku am solo fekk na yoo demeewul noonu jël nañ nit tamit koo xam ne dañoo jàpp ne néew na doole wala amatul solo fekk na mu ëpp solo fuuf liggéey yooyu léeg-léeg day am solo ngeen def immersion ci QG yi di xool liggéey bi parti politique yi nekk yow kan di nga mën a am dina di nga mën a am vision boobu parce que yow tu au cœur des mhm. serviteur yaa ngi mën a jàkkaarloog Pape Djibril yaa ngi xam le travail qu'il fait mais ñëpp duñu ay serviteurs y a des personnes yoo xam ne observateurs lañ am na ñoo xam ci yeneen camp mhm. yeneen camp la ñu yeneen camp la ñu bokk c'est-à-dire bu ñu defee le constat c'est-à-dire avant quelque temps rek Pape mm. Djibril Fall ñëpp amoon sympathie mm. mais gis nañ récemment dernièrement mm. day def sax ay sorties nit ñi di ko nit ñi di ko yuuxoo donc loolu dafay ñuy wan ni vraiment si seen un constat simple rek de la réalité donc capital sympathie bi nga xam ne amoon noo ko dafa wàññi non xam nga loolu mënul nekk baal ma xam nga loolu mënul nekk analyse xam nga analise boo koy def mënoo ko def si lu dul sur la base de faits établis xam nga les faits mooy lan surtout un journaliste wala un chroniqueur booy analyser waroo wu ci njortu wala ne ah lii non non njort xam nga xam nga amul fee. xam nga euh, bu fekkee yuuxu. loolu pour man c'est très légère comme analyse. du yuuxu yuuxu. yuuxu xam nga yuuxu fukki nit wuy ma waaw déglu ma parce que bokkul woon kan yow da ngaa a toog sa ah. plateau bi di wax ñu lay yuuxu. loolu ah. mënul nekk mais mais kuy xoolal kuy analyser. kuy ah, analyser xoolal déglu ma xoolal Pape Djibril Fall dafa nekkoon analyste. analyste nag bokkul ak homme politique boobu nga nekk un mosoo gis journaliste bu toog ci plateau di analyser nit ñi di ko yuuxu kan moo ko yuuxu mais boo demee ci public déglu ma wax la waaw boo demee ci boo demee ci public même meegali boo fukki nit sax bu ñu yuuxoo mën naa def bruit pour te dire mais da dem ci public fekk fa ñoo xam ne dañoo ànd ak yow fekk fa ñoo xam ne ànduñoo ak yow mais loolu du du moom kese bari leader yu fi jaar ñëpp amul leader bu fi émerger ba egg fi nga egg te à un moment donné amul ñenn ci population bi ñu d'accordul ak yow ñenn sax parfois dañ leen di cautionner yónni leen ne leen dem leen diw bu waxee rek yuuxu leen ko. Mm. mais loolu nit mënu ci dara loolu nag signifié wul ni sa capital de sympathie dafa wàññeeku. ku analyser côté boobu da ngay juum fi nga ko mën a xoolee. Mm-hmm. mooy Pape Djibril Fall. élection les dernières élections ban ban résultat la te à part à Bokk Yaakaar. Mm-hmm. et l'intercoalition te pourtant mais loolu mooy les faits. mais léegi noo fi mën a bàyyee loolu. mais très sincèrement. Kajoor Kajoor Kajoor de faire ci li li li ñuy wax. Kajoor Kajoor je vous dis je vous dis xam nga lu ma mënul nag même ma egg xam nga lu ma mënul nag nga bàyyi fi le principal di wax ci accessoires yi. mooy les faits établis mooy. accessoires yi Pape Diouf Fall en trois mois. xoolal quand on dit que la capitale de sympathie dafa wàññeeku. loolu mais mais sur quelle base. loolu mënoo leen ko mais loolu moom mooy mooy mooy sympathie bu wàññi ñi ko doon tàccu. ñoo ko doon yuuxu lieu bi moo changé. ba muy ba muy ba muy def ba muy def ba muy réagir noonu. Mhm. ils intervenaient euh, si toile bi ñu koy ñu ñu ñëpp gis nañu nit ñi ko doon nuñ ko doon encouragé maintenant il n'est plus sur la toile parce qu'il n'est plus euh, si plateau bi mu dem fekki leen nag euh, live and direct ñu yuuxu ko foofu qu'est-ce qui a entre temps loolu lañ doon wax donc te loolu yow doo ko weddi cest à gis nga gis nga gis nga à Dakar les hmm. élections locales passées rien qu'à Dakar hmm. on a huit mille personnes qui ont voté pour nous huit mille yoo xam ne dañoo yeew te xoolal on n'a on n'avait pas investi à Dakar. d'accord xool en trois mois. nga am un de cinquante six mille loolu moom on veut mais loolu mais loolu loolu. loolu bu Sénégalais yi bëggul. noo on veut le concept mais loolu c'est inédit dans foofu dama fiy déggoo ak yow balaa dem ci kële. mais ci base yooyu nag ngeen mën a. non non mën nañ ci déggoo. mën nañ ci déggoo mën nañ ci déggoo parce que bu fekkee dañ leen doon reprocher. de mais mais xam nga boo bañee juum xam nga boo bañee juum gis nga kaa ma wax leen nag je vous le dis ah très gis nga booy basé léegi sa analyse ci ay njort wala li xew ci réseaux sociaux yi wallahi azim di nga juum juumati de parce que parce que li amal loolu moom ñu ko wàññi léegi ñu ñëw si euh, ki nga moom mooy euh, Mouhamed euh, Mouhamed on parle de leader ci leader yi nga bokk donte jeune nga yow da nga préféré en tout cas entre autres sa sa sa sa moyen d'expression mu nekk livre bind yaa ngi njëkk bind livre bi nga xam ne yaa ngi ko tuddee l'apogée de la souffrance l'apogée de la souffrance yaa ngi ci wax yaa ngi ci jël ay thèmes yu bëri boo ci mënee dellu soit et lan moo waral aussi le choix euh, de de cette façon de de s'exprimer bi nga xam ne moom nga jël. Euh, merci beaucoup encore une fois donc ñu duggaat ci côté littérature bi euh, li ma koy wax livre bi ba mu koy bind je n'avais même pas vingt ans à la l'apogée de la souffrance mu am acceptation Harmattan am acceptation maison d'édition yu bëri ñu choisir woon euh, édité ko aux éditions Gorée. mu ngi doon wax ci les violences faites aux femme doon traité spécifique spéci spécialement si vous mm. voulez donc benn problème bu ñu le cancer du col de l'utérus parce que daf doon gangréné donc li may wax rek l'écrivain il décrit de c'est-à-dire son environnement dañ doon gis ñu bëri di di di souffrir ci maladie boobu noonu ñu ne pour campagne bind si ñu daal di composer nag une une boo xamante nii franchement ñun amuñ ci benn benn tey ji gars yi ils ont accepté à 100 pour cent même les critiques littéraires ils on accepté parce que bu demee ba comité de comité de lecture bu Armatan maison d'édition Armatan joxe un rapport de lecture positif kon ça veut dire que ñun am nañ espoir ci affaire boobu noonu mu génn ñu defal ko deux cérémonies de dédicace mu def bum gars yi apprécier ko donc mu daal di génn livre bi li ko may li ko may loolu noonu mooy c'est-à-dire il il discute sur la société parce que comme li may wax l'écrivain c'est celui qui le l'écrivain c'est celui population li nga xamante ne moom la sa population di dund loolu nga war a def ab xëy nag bu euh, waxtaan nañ ci personnage principal bi booy xool ci sensibilisation moo tax ma rey suñu personnage principal bu tudd xaar yàlla parce que wakil c'est mu arab arabe qui signifie en wolof xaar yàlla ki signifie je me débrouille man maa ngi nii daal maa ngi dem di xaaraal yàlla suñu borom ku góor ki tudd wakil ku jigéen ki tudd xaar yàlla pour harmoniser donc intrigue livre bi à ne pour sensibilisation bi gën a jàll parce que tey jii exemple un cadre qui lit les livres et qui se rend compte que la bien-aimée de Wakil perd c'est-à-dire la vie euh, euh, à cause d'une maladie boo xamante ni mooy cancer du col de l'utérus parce que personnage bi teelu ko yëg mu dem ba gaañ ko mu daal di faatu cadre bu koy euh, liiree danaan ça c'est une sensibilisation direct c'est une sensibilisation violente mm-hmm. danaan ah man kat kon sama bien xaaral ma yóbbu ko mu def consultation Euh, cancer du col de l'utérus ñi nga xamante ni ñoo nekk les femmes nekk autour de lui mu daal di yóbbu ñu def sensibilisation loolu moo ñu ci dugaloon mais aussi wax nañ ci divorce yi mhm. parce que c'est un cas très très très récurrent aujourd'hui wax naa ko ci livre bi ma ne les mariages aujourd'hui c'est Paris Dakar mën nga dégg tey jii marié nañ suba ginnaaw suba nga dégg divorcé nañ qu'est-ce a lan moo tax affaire boobu noonu am mhm. tey jii suñ wax ñu naan est-ce que Mariama Ba inspiré wu leen mu on s'est on s'est de Mariama Ba pour euh, pour, écrire cela. pour raconter li nga xamante nii moom la ñu gis ne kat lii ci lii ci population bi la en fait lii si une parti de nous. fait femme femmes dire si sa si sa livre donc j'aimerais savoir est-ce que sur le terrain dem nga des def nga des investigations yu lay conforter ci li nga xam ne moom ngay moom ngay wax c'est-à-dire bu ñu jëlee violence faite aux femmes yi bëri na bëri na ay formes donc bu ñu amee forme yi d'abord après taux de taux de prévalence yi après cause yi après yeneen ak yeneen ak yeneen c'est-à-dire c'est un travail qui est intellectuel c'est un livre c'est un travail littéraire intellectuel donc il faut qu'on le base sur des sur des faits ak sur des sur la réalité est-ce que jël nga le soin de faire aussi ce travail avant de nous proposer cela euh, merci beaucoup je pense que euh, l'écrivain qui, euh, qui écrit mm-hmm. su fekkente ne ni il laisse exprimer son cœur il ne peut des données c'est-à-dire moom regard bi muy am ci société bi rek doy na ko analyse. Mhm. parce que au Sénégal tu ne peux pas être sénégalais surtout dans les villages et mais Wakil loolu dafay xaw utopique. c'est-à-dire on parle d'un réalité. effectivement violence faite aux gens bu fekkee da nga ko yemal ci say ñu duñu ñu c'est-à-dire on peut comprendre c'est c'est une problématique mais après fan la toll ci Sénégal quels sont quels sont les les problèmes fan nan lañ koy régler je pense que loolu tam a besoin de ça. ma jox la ma jox la benn. en trente en trente secondes. bu ndaw parce que tey boo nekkee Sénégal nga ne man gisuma kenn kuñ fi def violence conjugale est-ce que yaa ngi au Sénégal. Mhm. te tey bi dañ koo xool ci société bi gis inconvénients yi am ñi nga xamante ni exemple nga jël deux euh, deux élèves kenn ki ses parents ñu ngi ci ay violences conjugales yu grave yaayam dañ koy naxaral keneen ki ses parents sont kii résultat scolaire bi muy am sax parfois da ngay gis affaire bi di répercuté wu ci loolu parce que ñu on a j'ai avec des camarades yoo xamante nii seen seeni ay euh, euh, parents dañuy am violence conjugale te dañuy gis répercussion exacte c'est-à-dire ci enfant c'est pas une réalité absolue Ah, ah oui c'est une réalité absolue loo xamante dañ koy dund la ci euh, euh, ci société bi. c'est-à-dire pour te dire que le fait que d'être dans une situation boo xam ne da ngay dund violence conjugale. Mm-hmm. wala nekkoo ci. Mm-hmm. c'est-à-dire loolu peut-être mën na am des impacts. Mm-hmm. sur la, Après, euh, la euh, la la scolarité. mais c'est pas une vérité absolue ça peut avoir des impacts. ça peut ne pas avoir, aussi des avoir d'accord on est d'accord on est d'accord gis nga soo continuer temps bi sa rubrique bi lañ koy jël léegi yow ma ma ñëw si ma Kane on est pratiquement vers la fin ñu ngi waxu waxu jafe-jafe Amadou mu ngi ci wax kii mu ngi ci wax votre leader a fait le tour yaa ngi koy léegi mu ngi nekk dans le dans le terrain di di lii tey jii quelles sont les difficultés yoo xam ne moom la jële ci tournée yi muy def foofu noonu ak euh, ban ban ban solution la mën a ngeen mën a indi war ko mën a jébal askan bi pour daggaan seen baat. waaw euh, li mu difficulté yi ñu gën a euh, gis rek mooy ñàkk ñàkk yërmande bi nga xam ne suñu gouvernement yi am nañ ko am na gox yoo xam ne bu day wax ni président daf ko mos a wax mu ne am na gox yoo xam ne ba ma fa demee nee na su may retourné damay rus a duggaat sama oto sax. ndax ci condition yi ma leen di fekk nee na day rus wan leen ginnaaw di duggaat ci oto di dem yoonam ndax ci condition yu précaires yi ñu nekk di dund euh, te te loolu tamit moom dafa doon koo xam ne daf daf daf c'est-à-dire amul écart entre euh, les difficultés que vivent population ak moom au quotidien day côtoyer les populations c'est quelqu'un boo xam il aime les personnes il aime rencontrer les gens xam nga malheureusement le leader de Bokk Yaakaar c'est boo xam ne euh, du d'habitude xanaa léegi ba ba mu soxla amu fi vis-à-vis de tu vas pas nga xam nga Amadou Ba Amadou Ba nit la koo xam ne bu bariwul lu ñu koy gis ak nit ñi mu jaxase man man ak moom man unité 5 laa dëkk mu dëkk unité 6 benn tali moo dox suñu diggante munoo am maqaama gis Amadou Ba muy dugg naan day saytu population yi wala day jaxasoog ay nit. munoo am maqaama socialement il est présent au Sénégal. no il mais il n'est pas présent socialement nga xam nga boo koy def li ñu naan bay ci say wewu tànk. yow gox ba nga dëkk bu fekkee ñoom munuñu la gis ak ay nit mënuñu am jafe-jafe ba gis la seen wet sëñ bi boo nee da ngay defar réew mi loolu ay naxaate la te gis nga li gën a triste ci mbir mi. Amadou Ba maanaam cawarte googu. da ko am pas de représentant sur plateau soit élégant aussi. non non je munoo ko xam nga ne du am ku koy tontu. kon kon baal ma voilà concentre-toi sur ce que vous vous nous proposez. vous les serviteurs vite fait ñu ñu ñu ñu jàll. voilà donc donc loolu laa bëggoon c'est-à-dire mooy euh, ñàkk yërmande bi nga xam ne moo am. ak euh, écart bu rëy bi nga xam moo am entre les gouvernants et les gouvernés. Mm-hmm. Euh, dangay dem ci benn gox fekk ñuy dund ay conditions yoo xam ne. ku la waxoon lii am na ñu koy dund Sénégal doo ko gëm parfois malheureusement gis nga suñu débat yi. Mhm. c'est purement des dakaar dakarois yàlla xam na ni maanaam ñi ci àll bi li ñuy dund lu méttee métti la léegi nag loolu li lay permettre nga xam ko du du loo xam sax dañ la koy nettali da nga koy liir fenn mais da ngay jug doxal sa bopp te président heureusement tàmbaliwu ko léegi il a été député avant l'heure ba muy nekk journaliste. la doon def xam nga c'était vendredi son émission du du du du samedi au jeudi dafa doon taal otoom di dugg ci réew bi loolu moo tax bu doon toog àjjuma ci plateau di wax da ngay yëg ni kii maanaam situation bu ci euh, citoyen bu ci nekk day mën a miroité wu ci wax yi muy wax parce que day refléter les réalités en fait des populations parce que dafa doon dugg ci ñoom di xool seeni i jafe-jafe di ñëw di ko génnee di ko wax ci plateau bi te loolu noonu mooy tax tamit gis nga mooy li sawaay laaj sànq ne est-ce que dina am écart entre li ñuy li ñuy pro proposé ak buy ñëwee est-ce que dinañ ko jëfee le fait que mu xam coono boobu xam ko dund ci loolu loolu bu ko duggaalee pale rek dañuy am yaakaar ni moom tey jii loolu dina ko jege xam nga Paul Paul Kagame Macky Sall xamul woon déedéet moo Macky Sall xam nga lan moo tax Macky Sall à un moment donné loolu Macky le mieux placé non non non non xam non non déedéet xam nga lan non non non un pur produit déedéet de de l'école publique déedéet une personne issue d'une famille pauvre très modeste ah, xam nga lan moo tax xam nga xam nga lan moo tax bokk mais je t'explique mais je t'explique donc s'il arrive set expliqué lu tax bokkul xam nga Macky saal ba mu jógee ci ndóol gi dafa yàgg Macky Sall jóge na ci ndóol gi bu yàgg loolu déglu ma wax la rek bokkul bokkul <laughs> bokkul xam nga la ma tax ma wax la c'est-à-dire Macky Sall c'est-à-dire maanaam gis nga jafe-jafe yooyu boo ko duggalee pale rek c'est-à-dire gis nga Paul Kagame li tax gis nga li muy def li muy def Rwanda li tax mu koy def mooy Paul Kagame ñàkk googu daf ko xam daf ko dund ba loolu la dugaalee pare dafa wax ni sax doomam bu jigéen nee na moom moo daggal boppam cordon ombilical ndax ndax ndax ñàkk ñàkk googu nag sëñ bi boo ko xamee ci population dund ko bokkul ak ki nga xam ne ñàkkoon na waaye toog na un grand temps il a eu temps de latence boo xam ne toog na ko génn ci ndóol googu nekk ci noos ba doyal. soo koy jël je vois pas bokkul xam ne seen fraîchement dañuy dugg ci ci gouvernement. on a juste nga nga nga wax ci saw molotov bi nga xam ne man rien qu'en le regardant ça me ça ça ça crée une panique nga ne euh, c'est c'est c'est l'intitulé. du deuxième euh, livre bi nga xam ne moom nga nar a lii lan moo waral nga choisir Molotov comme intitulé wu livre boo xam ne yow bëgg nga nit ñi déglu ko est-ce que c'est pas violent de ta part ok Euh, fait en... comme temps bi bëriwul. Mm. Euh, njëkkoon nañ ko tuddee neneen loo xamante ni sax mën naa ne fàtte naa ko. Mm. genre pour rien que pour wax tour bi rek ne lii laa tuddee sama livre rek ça a été un travail de titan. Mm. Euh, tey jii li tax ñu tuddee ko Molotov. l'inspiration m'est venue jour bi euh, événement cocktail Molotov bi gënee am ampleur mooy ba ñuy takk euh, taal bis bi nekkoon euh, côté yële ñu koy jiñante entre gouvernement bi la Antoine Félix le manifestant yi la après ñun également on s'est investi pour xam lan mooy Molotov lii fu mu jugee si lañ xam origine cocktail Molotov fu mu jugee si kan moo tax ñu tuddee ko Molotov ak fu mu euh, ban dëkk la ak kan moo ko tuddee Molotov kan lañ ko tuddee ak kan moo ko ko tuddee ñun tamit ñu ñu daal ci inspiré wu mais def ko benn abrège def molotov deux points mais tout livre bi dëgg-dëgg c'est ce que le cinquième président nous doit j'aurais aimé débat bi doon un débat aussi bu xaw a vertical entre entre nous parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui représente un candidat mm-hmm. mais peut-être sax candidat bi laa gënoon soxla parce c'est un loolu c'est c'est après l'ouvrage que lañ ci mën a débattre parce que il faut au moins ñu liir ouvrage bi. effectivement ce sera un voilà. plaisir euh, effectivement le 16 moom mooy cérémonie de dédicace bi. ñu ngi ko euh, choisir def UGB. la également c'est genre c'est un c'est un c'est un cri de cœur bu ñuy def à travers l'UCAD. man mhm. je suis élève à l'Institut des de la terre foofu la Macky Sall génnee. Mhm. ak ah, ñu ngi toog huit mois jànguñ maak samay moroom yi nekk université yépp le premier juin des événements se sont passés invité ngeen fi samay nawle yu bokk ci collectif bi expliqué nañ leen mu demee donc loolu la mais tey jii moo tax ñu délocaliser ko man du ma étudiant UGB. Mhm. moo tax ñu délocaliser ko pour wax autorités yi franchement nous voulons étudier en fait. ñun dañoo bëgg a jàng dañoo bëgg a suñu suñu en université. moo tax ñu defee ko UGB. am naa ni équipe Sen TV incha allah dinañ leen ko wax. on aimerait bien avoir cet ouvrage la nga xam ne dañ koy liir ba pare su ñëwee ñu ñu mën ci jotaay. c'était le temps qui nous était imparti. <laughs> ça a été un plaisir ñu ñu dalal leen c'est passé vite on n'a pas <laughs> trop géré le temps. Euh, en tout cas euh, monsieur Kane jaajëfal nañ la bu baax a baax. plaisir partagé Kajoor euh, di la jaajëfal bu baax euh, ci ci ci émission bi. ak euh, ni ngay manager émission bi ni mu amee solo euh, je m'attendais à voir aussi mon ami Pape Malick. il est en France il est en France ok moom moo topp Macky sal ah bon <laughs> ils son ils sont passés à ils ont été à Paris. ah bon depuis ils étaient Doha hier. ah koy jaajëfal bu baax a baax. ok d'accord donc moom ci ñi quitté réew mi la bokk quoi. parce que actuellement président nekk fi président l'Assemblée nekk premier ministre nekk fi. ñoom ñoom la àndal rek la àndal. donc di di di remercier encore euh, yëpp di leen lancer waat encore message di leen woo. di leen wax ni vraiment euh, gis jàpp nañ ni le profil idéal qui va changer la donne c'est le président Pape Djibril Fall ci ci taxawaayam ci xam-xam ci teggin ci xam réew mi waaye ci bëgg réew mi ak ci am yërmande ci sénégalais yi di leen wax ni vraiment nañ ko gën a bàyyi xel bàyyi nañ ko xel set waaye nañ ko gën a bàyyi xel gën koo dolli ñaan gën koo dëgëral gën a tamit euh, xool li nga xam ne mooy l'idéologie et le projet des serviteurs incha allah <laughs> ñu lay jaajëfal également ci teew bi nga teew fii di nuyu waa Jolof yëpp ñu fi teewoon mbokk yi fii la ñuy yemale li nga xam ne moom mooy partie bi ñu jagleel invité on a grignoté quelques minutes mais dinañu xool nu ñu ko rattrapé merci beaucoup on se donne juste après ceci ñu dalal suñu yeneen rubrique yeggali euh, li nga xam ne mooy matinal bi en beauté